sab jàmm dimbali Sénégal waaw biir assemblée assemblée nationale nekkal fi waa askan wi waaw waaw waaw waaw yaay góoru daara kuy ram di la teete su amee oto yóbbaale mooy tête de liste département de Dakar de moom moo yelloo bilaay yaa ko yelloo yelloo élèves yi bég nañ si yow inscription fourniture seen jàpp muy duggee assemblée daan naan ca kas gin gin ca kas gin gin xoolal ku nga àndal lu la neex laaj alsaan la ñu bu leen ñu ñaaj xale eh yow daa ngay doxal alsaan daa fay eh kon karma alsaan daa ngay doxal mouvement eh ñun daal ni doxal alsaan daa ngay doxal jigéen ku ni formation de métier eh, sodo kaay di suivi gratuit waaw waaw waaw loolu leer na ma yaa def formation. man mii. digital. billaay loolu law na. musi ñëpp am. ba man mii. ku nekk jot sa billaay wallaay. finance yi door a yegg si. waaw laajal sunu yaay. ziyaari bu ñëw. nga def si waaw. loolu leer na ñëw. ñëpp jekk ndax may topp yow la yaa mën yaa ëpp doole alkaan yaa féete yaa mën yaa ëpp doole ni muy duggee assemblée daan naan ca kas gin gin ca kas ca kas gin gin xolal ku ànd ak ki nga àndal lu la neex laaj alsaan la ñu àndal bu leen du njaaj xale baa ngi nii eh. jërëjëf Amina bi dootu ñu fi yaa fi nekk ñi ñu ñu ñu ma nekk yokkal doon yokkal si gars yi yow dama yàlla defal yow waaw kon yow rek la ñu toog merci beaucoup ñu ngi leen yàgg leen si yéen rek seen gàtt daal leen waaw waaw merci Mamadou Mamadou Mamadou Mamadou

làmbal liw fas taxu dafa xaraw fasal nga sa kanam pour seen si ginnaaw moo sa xala def yaa nga sa kanam Alassane Thiam jumbante Sénégal waaw biir fi askan waaw waaw waaw waaw yaay góoru daado kuy ram di la teete su amee oto yóbbaale la mooy te delli si département de Dakar de Dakar moom moo ku yelloo bilaay yaa ko yelloo jaam yaa ko yelloo ki nga àndal lu la neex alsaan la ñu àndal bu leen ñu xale baa ngi nii eh, yow daa ngay alsaan daa koy doxal eh, kon karma alsaan daa ngay doxal mouvement jubbanti eh, ñun dañuy doxal alsaan daa ngay doxal jigéen ñi kenn toogatul fii si Yarax 30 personnes loolu law bu si ñëpp am ba si man ku nekk jot sa wàll bilaay wallaay finance si waaw finance yi door a sunu yaay bu ñëw def si sa loxo loolu leer na ñëw ñëpp jéeg may copier yow la ñu tànn si seen biir waaw waaw yow la ñu wóolu yow la ñu wóolu yaa mën yaa ëpp doole alsan yaa féete xale lay féete xale yaa mën yaa ëpp doole alsan jaam yaa féete xale alsan jaam Hola, la sentamos. ni muy duggee assemblée daan naan jakkas gin gin jakkas jakkas gin gin xoolal ku ànd ak la neex laaj alsaan lañu àndal bu leen Omar Thiam mooy xew na ndax bi keneen ko jàkk jarul kenn du ko piis damay wax ni il yomb na lool kenn ku ci nekk jóg samp sa ndënd kenn ku ci nekk naan mën a wax dëgg rek ba yëkkati ay millions jotee

defu ci benn defu ci ñaar defu ci ñett waaye dafa jël dix points wifi mu installé ko ci commune Andola te loolu mooy première phase bi première phase bi la defagul ñu jógee ñu fii wala les jeunes filles qu'est-ce que vous voulez faire et quatre-vingt-dix pour cent des jeunes filles yi nga xam ne jot na wax ak ñoom

defee tàggale xale yi ci def correction jëmm ji taxaw nii moo jàppale suñu yaay yi ba ñu am financement. asalaamaaleykum. Euh, wa commune de anne Belair. air euh, wa quartier anne Village donc c'est avec un plaisir que a ñu dans ce quartier pour faire une séance de porte à porte et je pense que depuis hier nous avons fait ci qu'on bi di Nous ak nit ñi di waxtaan ak nit ñi donc di leen xamal lan donc je pense que politique c'est juste une proposition proposition bu ñu leen indil mooy ni que dañoo bëgg représentants au niveau de l'Assemblée nationale ndaxte seetlu nañ ni yaraax yàgg na am ay député mais mosuñoo am benn député bu nga xamante ne day dem pour régler les problèmes de la commune de Hann donc ñun tey ñu porté wu volontaire beaucoup ci liste bu ñuy woowee coalition du Sénégal nekk aussi tête de liste départementale donc je pense que c'est un honneur le fait que ben benn doomu que nekk tête de liste départementale donc moi pense que yaraax yëpp war koo mën a donc di jégaluwaat bu euh, les militants ak les sympathisants ak tamit di féliciter vraiment responsable DJ di aussi waa quartier bi politique irrégulière. donc je pense que les 21 jours de campagne c'est juste rek permettre du coup c'est donc rek bruit politique aussi dafa ambiance donc nous vraiment perturbation yi espérer que vraiment un Village ils ont très bien compris le message et ñu félicité vraiment responsable vraiment nous ñu fi kër au contraire kër lay yatal donc nous message tranquillement dans la cordialité donc je pense que c'est une activité que nous maintenir, féliciter en tout cas vraiment je remercie les militants les sympathisants je remercie vraiment toute la communauté toute la commune d'Anne Belaire. c'est vraiment un bu may vraiment accompagnement vraiment en espérant qu'on aura un nombre de votes filles ci un Village toute la dans toute la commune danne qui va vraiment dépasser la moyenne donc en espérant aussi qu'on sera vraiment les députés du peuple vraiment jërëjëf waa Hann Village jërëjëf euh, coalition Jubbanti jërëjëf Yaraax